Okay, alhamdulillah. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إن شاء الله نيجي ورجل تي آية 141 في سورة الأنعام في سنة برم دي وخيني وهو الذي أنشأ جنات معروشات ñu ngi sant suñu boroom subhanahu wa taala mi ñu wërsëgalaat ñu daje ci ab néegam fas yéene jàng ab téeréem suñu yenent sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bégal ñu ca ci ne mboolem jullit ñiy def loolu day yàlla dana wàcce ci ñoom ak dal yónni ay malaakaam ñu wër leen mu yiir leen ak yërmandeem ca di leen tudd ca malaaka yu kawe ya ne fa moom ñi ngi koy ñaan jalla wa ala yal nañu nangul suñ jataay bi ca boole ko ca di ñaanal it mboolem ñi nga xam ne ñoo koy déglu ak fu ñu mën a nekk ci kaw suuf yàlla boole ñu ak ñoom ci ñi nga xam ni seen xol day aju ci néegu yàlla ya di aju ca téereb borom ba jàll waala fayal ñu it ñi nga xam ne ñoo dox suñu diggante ak ñoom ci la nga xamee ne nii mooy groupe yi aju ci jàkka ji yépp ak suñu télévision bii di Islam TV te it jàppale ñi nga xam ne ñoo leen di jàppale tey mooy ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru shawal ci quatre mille quatre cent quarante quatre mi ngi noonu di dëppoo ko le dix-sept su ma jëmul am dix-huit le dix-sept na am dëppoo ko le dix-sept mai ci deux mille vingt-trois incha allah kon bu Cheikh Ousmane pare mu jëlal ñu suñu bind bu njëkk
بالله من الشيطان الرجيم وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين بارك الله فيكم suñu boroom kon mu ne wa huwa allazi ansha'a jannatin ma'rushat moom day mooy ka nga xam ne moom mooy ka sos yëkkati jardin ya nga xam ne dañoo nekk lu ñuy tàgg wa ghayra ma'rushat ak yoo xam ne kenn tàggu ko ay kenn mbaaru ko wa naxla ak lii di tàndarma ya wa zara muxtalifan ukulu ak mbay ma nga xam ne day wuute lool lekkam ga wa zaytuna wa rummaan naka noo ñit lii nga xam ne nii mooy olive ya ak grenade ya mutashaabi mutashabihan wa gayra mutashaabih muy am yoo xam ne day nuroo ci bitti ñàkk nuroo ca la nga xam ne mooy ca biir kulu min samarihi ida asmara lekk leen waay ca meññet ma su dee meññi na wa aatu xaqahu yowma xasaadi ca ngeen joxe la nga xam ne mooy aqam bis ba ngeen kay góob wala tusrifu ay waay ngalla it bu leen yàq innahu la yuhibu almusrifin ndax yàlla day bëggul yàqkat yi wa min al an'am suñu demee ca jurub kër ga xamulatan am na ca yoo xam ni ay yenukat lañu doon wa farshan ak yu ñuy tëral di leen jëfandikoo kulu mimma razaqakum allah lekk leen ci li leen yàlla wërsëgal wala tattabi'u xutuwaati shaytaan te bu leen topp lii di jéegoo shaytaani innahu lakum aduwwun mubin moom day nekk na ñeel leen noon boo xam ne noon bi biir la bokk julit suñu boroom daa bëgg ñu jaamu ko bañ koo bokkaaleeg dara mu daa di baawaan ci ñun ay xéewal yoo xam ni bépp doomu aadama bu xellu dana xam ne yàlla du moroom li ko yàlla defal amul keneen ku dul yàlla ku koy def bal ku ko mën a def sax bokk na ci loolu suñu borom mu ne maa leen may ay jardin yoo xam ne dañuy doon yooyu law ci kaw da doon loolee dafa doon bu doon ñun liñu miin fii ci ay yomb ak ay façon garab yi nga xam ne day law ci kaw di dem façon fruit yu bari yoo xam ne amuñu dàtt bu sax ci kaw suuf waaye dañuy law rek di dem am na ca yoo xam ne it dañoo am dàtt taxaw jardin yooyee nga mën a fekk ci benn place la nga xam ne mooy ay tàndarama fekk fa am mbay mu wuute lool lekkam zara mooy lépp loo xam ne day génne pepp ya ceeb yaag dugub yaag mboq yaag yu demee noonu nga xam ni lekkam nga dafa doon lu wuute lool na am lekk ga dana wuute ci diggante fruit ak moroomu fruit lekk ga dana wuute ci même qualité fruit soo laa joon sëñ Caam ñaata façon mango am kenn xamul nu mu toll mango yooyu benn bokk ci sa moroom la nga xam ne mooy ah la muy saf suñu boroom it nee na noonu naa leen maye lii di olive lii di ay grenade yoo xam ne léeg-léeg mën ngaa gis ñaari fruit ñu nuroo lool fekk bokkuñu nga gis ay poire ay pomme boo leen soree day mel ne benn la fekk du benn doonte ne ci même catégorie fruit yi it comme niñ koy waxee da ngay gis ni mën ngaa gis ñaari mango nga jàpp ne amul benn différence waaye boo lekkee bii xam ne bokkul ak bee ma lekkoon mbokk lii lépp kawtee fi borom bi la ñuy won ci benn ndox moo koy arrosé ci benn suuf la génne lee wex xatt comme kaani lee forox comme lemon lee saf sukkar comme raisin ya ila axiri gannaaw ba it borom bi uutile melokaan ya yee nga jaune yee nga xonq yee nga chocolat yee nga verte te ci benn suuf lañ génne benn ndox moo leen arrosé suñu boroom uutelee cas ko ga naka noonu ba tey loolu lépp ci kattanam waaye tamit nga dégg ci borom bi jalla wa ala bëgg gi mu bëgg doomu aadama su ko neexoon dañuy wàcc ci kaw suuf keroog ba mu waxee malaaka yi maa ngi wàcc doomu aadama ci kaw suuf lan lañu fi defal am ndox akum ñax akon gaay du tee ñu lekk ko jeex na ndox ñax kese waaye ndax doomu aadama xam na ñaata espèce ci ay mbir yu muy lekk ba suur yee mu koy bànneexoo yee di ko deseeroo kenn xamul nu mu toll borom boobu nag subhanahu wa taala mu ni lekki leen ca meññentama heure bu meññee te loolu it mbokk julit am na ay nit ñu réer jàpp dañoo dëddu àdduna ba duñu lekk ay xéewal mbokk xéewal yooyu yàlla moo ñu ko defal tey jii boo amoon gan fonk ko lool mu ñëw nga toggal ko ay ginaar indil ko ay fruits defal ko lépp jox ko ko mu ñëw xool plate bi duma yi ni lii duma ko lekk ndax kooku da nga kontaan ci moom la wallahi suñu borom yàlla nag mu ne maa leen bindal li nekk ci kaw suuf lépp xalaqa lakum ma fil ardi jamia kon lekk leen loolu ma leen wërsëgal borom xam-xam yi di wax ni képp ku nekk ci gox lay ñëre ca gox ba soo ca mënee lekk lekk lekk ca yaakaar naa càmmin yi dañ d'accord ci loolu bu xaal jotee lekkal xaal mango lekkal xaal ndax fruit bi imma mu nekk lu lay jëriñ wala mu nekk lu lay protéger ci ay feebar wala mu nekk luy wéral say feebar wala fi ñoom dañ naan garab lépp looy lekk ci fruit rek xamal ne am na jeexital ci sa yaram moo tax borom mu ne kulu min samarihi ida asmara mi ngi noonu waaye nag borom bi mu ne wa aatu xaqahu yowma xasaadi génne leen aq bi tool bi am jamono bi ngeen koy góob aaya yi mi ngi wàccoon ca makka yàlla faraatalaagul la nga xam ni mooy maqaadir yi mu def ci zakat waaye yàlla dana woon ku bay sa tool bay góob rek génn ca aq su ko defee jullit bi moo daan xool la nga xam ne mooy kem kattanam mu génne ko jox ko fuqaraaw yi ak masakine yi amma ban demee ba madina nag yonent bi alayhi salaam nag daal di détaillé ne képp koo xam ne da nga am ay tàndarama wala nga am ay mbay su demee ba nekk juróomi aw suq nga xam ne mën nañ ko méngil ak 600 kilos su boobaa xaaj ko fukki xaaj su dee asamaan moo ko tawal benn xaaj ba nga génne ko zakat su dee yaa koy arrosel sa bopp xaaj ko ñaar fukki xaaj benn xaaj ba nga génn ko zakka loolu it nañu xam ni yonent bi alayhi salaatu wasalaam da koo tënkoon te la nga xam ne moom mooy fruit meññeent yi ak mbay mi amma la nga xam ne mooy fruit yi ak légumes yi yonent bi alayhi salaam génni wuti woon zakka looloo tax jumhurul ulama dañu naan zakat waru ca xaal yaag naaja yaag mango yaag yu deme noonu zakat waru ca yow jullit yaay coobaru wu rek génn ca sa kemtalal kattan am na ca nag ay benn benn rawatina mazhab shafii ñoom dañu naan lépp lu doomu aadama di génne ci biir suuf da caa war a génne zakat teqalewun ci fruit luy gëm ak lu mu mën a doon lépp da nga ko war a génne zakat amma dix pour cent bu dee asamaan moo ko tawal wala nga génne cinq pour cent su dee ne yow yaa ko arrosel sa bopp borom bi subhanahu wa taala mu ne kon lekk leen waaye nag bu leen yàq mbokk fitna bi gën a bon ci doomu aadama bokk na ca yàq ëwaleen mooy yàq ci lekk te ji boo demoon lu mel ni ay ay ay États-Unis feebar ba fa gën a tasaaroo mooy obésité dama aadama yi rëy ponkal mu créé leen lu kenn xamul mbokk lekk gu bëri égal poids poids bu bëri égal feebar yu bëri ku la gën a déséquilibré ci wàllu poids moo la gën a yomb ay feebar loolee kon mi ngi noonu lekk leen ci bu leen yàq waaye gannaaw lekk ga it suñu borom mu ne laa tusrifu innahu la yuhibbul musrifin yàlla bëggul yàqkat yi ay yow le jeune salarié moytul yàq yàq dalay yàqal lu bëri man ngaa dem ci benn service gi sa benn ouvrier boo xam ne salaire matul cent mille mu yaxanal ko ba yàlla wërsëgal ko ca kër mu nekk ak benn cadre buy fayoo ko cinq cent mille dana liggéey ba xëy dee ab birig du ko teg en suñ bilaal ñu ngi noonu loolee kon day am kon fexeel ba li la yàlla wërsëgal ak as néew dee ko économiser te loolu it moo waroon baykat bi ngalla waay li nga bay ren bu ko yàq ren sóoraale ci ne ëllëg mën naa bon am déet yonent yàlla yuusufa bokk na lu ko yàlla xamaloon dëkk bii ci Égypte day daan tegale sept ans yoo xam ne mbay mi lépp ay baax gannaaw ba dana am sept ans yoo xam ne dara du ñëw mu ne kon waajal leen ci seen sept ans yu baax yi lu ngeen di dunde ci sept ans yi nga xam ne mooy ñëw loola tax ba léeg-léeg ay problème nga koy dégg ci àll bi dëgg-dëgg warul woon a am ñuy xas gouvernement bi indi wuñu jiw wi indi wuñu nangam waaye képp koo xam ne baykat nga sun maam yi nuñ daan def mooy buñ basan bay dañuy xool la gën a baax ci tool bi ñu jël ko réserver ko ngir ëllëg ngir mbayum ëllëg looloo tax ba dañ naan gan rek moo daan tax sax ñu génne ko kon ngalawaay moytul yàq ak façon yàq ba bu mu mën a doon loolee ci ak col la loolee ci ay oto la loolee ci ay kër la yàlla bëggul yàqkat yàgg sa njaboot bu ngeen génne woon tey jii lu mat trente millions mën a am kër gu baax gu ngeen mën a dëkke nga jël cinq cent millions def ko ci benn kër goo xam ne say doom ya nga am sax duñ fa dëkk loolee mbokk ak yàq la boo amoon tey jii xëy na man jël la gën a kawe vingt millions tey boo ko amoon am oto bu baax nga gis ko atte na jël cent millions def ko ci benn oto yooyee mbokk da ngay gis na ay yàq la suñu borom yàlla subhanahu wa taala mu ne innahu la yuhibbul musrifin yàq mooy lépp loo xam ne da nga caa jiggi dayoo dama dama mën naa investir un milliard ci ab société kenn du wax day yàq waaye nga jël un million def ko foo xam ne dañ naan yàq la te mooy lan fa def mënoon naa baax te du yegg foofu la yuhibbul musrifin borom bi daal di ne gannaaw tool yi it maa leen may ci jur gi lu leen di yenul seeni bagage mi ngi noonu ca mooy giléem ya ak nag ya nga xam ne dañ leen a tàggat ana am buñ ko waxee ci yàlla dana ko détaillé ci kanam mooy nag mooy giléem nag xar ak béy mi ni mi ngi noonu borom baa ngi wax suratu naxl taxmilu asqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bi shiqil anfus yàlla ñu tàggatal giléem da ngay gis ne giléem yi dañuy jógee arabie saoudite traversé désert bi ñëw en afrique giléem bu mën a dox plus de mille cinq cent kilomètres aller retour giléem mën na ko dox yàlla may ko mën naa toog un mois du naan mi ngi noonu mën na daanaka yanu loo xam ne day tolloog poam loolu lépp mbokk kattanu borom bi la gannaaw ba it yàlla may leen lu ñuy tëral di ko rendi mooy farsha nga xam ne dañ koy rendi lekk yàpp wa jëfandikoo la nga xam ne der ya mi ngi noonu wa min wa min juluudil an'aami buyuuta tastaxifuunaha yowma zanikum yowma iqamatikum lu bari tey ci désert bi da ngay gis ne der yi bàyyi ma yi lañ daan jël di ci defar ay néeg di ci defar ay lal di ci defal asaasan lu ñuy jëfandikoo mi ngi noonu borom bi nag subhanahu wa taala mu ne lekk leen ci li leen yàlla wërsëgal mbay maa ngi nii jur gaa ngi nii lekk leen ci li leen yàlla wërsëgal su ko defee ñu xam ne mbokk xiiwal yi ci yàlla lu jóge looloo tax kenn gunta baadoola ke tiim am ñaw ne barke suñ diw lekk ba pare na jërëjëfa suñ diw yaa baadoola mbokk ndax suñ diw boobu moom moo tawal ndox mu jóge kaw asamaan ndax suñ diw boobu moo moom suuf bi nga xam ne nii ca la meññeent ba génne ndax suñ diw moo doon topp fepp yooyu di leen màggal ndax suñ diw moo doon màggal la nga xam ne muy fruit ya ndax moo doon màggal jurga la wallahi la tattabiu xutuwaati cheytaan borom bi mu ne bu leen topp jéegoy cheytaan mbokk yàlla waxuñu bu leen topp cheytaan daf ne bu leen topp jéegoy cheytaan cheytaane bu la bëggoon yóbbu ak a pes bu jàppee sa loxo police la lay jaarale jaare la église jaarale kii doog la yóbbu ak a pes ndax ñu bëri bu leen waxee kaa yéen ak a pes dañuy bañ looloo tax ba ci bëri ci njaaloo ci lu ñàkk solo lay commencé comme na ko way ko te arab ba dana waxe rek nazaratun fabtisaamatun fa salaamun fa kalaamun fa mawidun fa liqaaun may day daje xale bu jigéen bi xool ko xale bu jigéen bi xool ko bu muuñee xale bu jigéen bi muuñ rek mu ne ah salaamaaleykum wax ja tàmbale joxante numéro téléphone ya rendez-vous ya musiba daal di am bu doonte ne xale bu góor yi ba mu ne jàkk daj ci xale bu jigéen boo xam ne melu na mu war a mel daa sa jëb gisam gars yi di mbir ba fa la yema waaye ba nga toppee jéego cheytaan da lay nax nank nank nank nank ñay dem ci njabarkat yéen na ko noonu dama am problème ma dem ci njabarkat ba premier jéego pour régler sa problème nga dem mu ne la yow day sa wujj moo la liggéey ah yow day boo bëggee def luy sotti da ngay rey ganaar gu ñuul gi ak béyu nangam nangam nangam léegi noonu la def ay jéego jéego jéego ba tabbal la ca la nga xam ne ni moom mooy cheytaan loolu ci ci ay ci ay pexeem borom bi mu leen bu leen topp jéego cheytaan cheytaane seen noon bu biir la suñu borom it nee na innahu lakum aduwun fattaxizuhu aduwa jàpp leen ko def ko noonu naka la ñuy noonoo cheytaan mooy lépp loo xam ne mayug yàlla la daw ko sekem talal kattan yàlla nañu yàlla musal ci moom musal ñu ci ay pexeem
ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل الذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين
barakallahu fikum suñu borom mu ne samaniyata azwaj juróom ñett la ci ay peer mooy góor ak jigéen ba muy juróom ñett mina daani isnayni soo demee ca xar ya fekk ca ñaar wa min al maazi isnayn nga dem ca bëy ya fekk ca ñaar muy góor ak jigéen qul a zakarayni harrama amil unsayayni laaj leen nag ndax moom ñaar yu góor ya la yàlla araamal wala ñaar yu jigéen ya am mashtamalat alayhi arhamul unsayayn wala la nga xam ne ëmm na ko lii di biiru ñaar yu jigéen ya nabbi'uni bi ilmin in kuntum sadiqin xabaare leen ma ci xam-xam su dee ne nekk ngeen di aju dëggu wa min al ibli isnayn soo demee ca giléem ya ñaara ngoog góor ak jigéen wa min al baqari isnayn nga dem ca nag ya ñaara ngoog góor ak jigéen qul azakarayni harrama aminun sayayn laaj leen ndax ñaar yu góor ya la araamal wala ñaar yu jigéen ya am ashtamalat alayhi arhamul unsayayn wala la nga xam ne ëmm na ko lii di biiru ñaar yu jigéen ya am kuntum shuhadaa id wassaakum allahu bi haada wala ndax da ngeen nekkoon di aji seede bi leen yàlla subhanahu wa taala di dénk lii fa man azlamu mimman iftara ala allahi kaziba mu ana ku gën a mën a tooñ ci kiy dóoral yàlla ay fen li yudilla annaas bi gayri ilm ngir sànq nit ñi ci lu teguwul ci xam-xam inna allaha la yahdi alqawma zalimin yàlla day du jubal mukk xeetu tooñkat ya mi ngi noonu mbokk suñu boroom ci xéewal gëm ñi defal mi ngi noonu su ko neexoon yàpp moom benn baag yu ma rek lay indi ci kaw suuf waaye mbokk da ngay gis borom bi lim ñu defal lu ñu mën a lekk kenn xamul nu mu toll lépp luy dund ci kaw suuf dagan na doomu aadama lekk ko bam des lu diine ne lii bokku ci te loolu boo ko doon lim matul fukk espèces yi nekk ci doo ci kaw suuf kenn xamul nu mu toll mu am te nag luñ ca yàlla baaxe muy anaam di juruga anaam boobu nga xam ni da ngay gis tey ji ku am géttu giléemam mbokk benn giléem rek bu bañoon fii waa jàkk jëpp mënuñu ko téye ngay gis benn xale bu ndaw jiital téeméeri giléem yóbbu fu leen neex jilim yooyee nga gis dañ leen di bàyyi ñu dem ca àll ba lekk ba suur dellusiwaat ci kër gi nga rat num la neexee jàpp ren gi bu la neexee jaay bu la neexee nag yooyu naka noonu gis go nekk pël gu ndaw jiital géttu nag moo am ci ay xabbaan yoo xam ne nii kenn xamul nañu toll waaye dañuy dem lekk ba suur ñëw nga ñëw dugg ci biir gétt gi ratt lu la neex heure boo bëggee jàpp benn yëkk jaay rendi yàlla defal ñu loolu muy xéewal ci xar yi ak ci bëy yépp borom bi mu ne juróom-ñetti peere gi ma defal leen ko xar yaa ngi nii xar yu góor yi ak yu jigéen ya bay yu góor yi ak bay yu jigéen ya waaw léegi ana ban ngeen am preuve ci ne yàlla nee ne bii moom aram na jàng nañ ca gannaaw créé woon nañ li nga xam ne mooy bahira wasila am saiba ca mooy façon jur yu nekk créé nañ ko ne lii moom daa xaraam ak yoo xam ne dañ ne ñii rek ñu am droit ko lekk borom bi mu ne waaw ana ban la ci yàlla araamal indil leen ma xam-xam ngeen teg loolu ci xam-xam ca mbokk suñu borom jalla wa ala mi xam ay jaamam xam ne ne doomu aadama ku ko dàq sos amul doomu aadama yi lu leen neex wax waaye mbokk wax dafa yomb borom bi mu ne indi leen teg ko ci xam-xam su dee dëggu ngeen loolu amul borom mu ne waaw comme loolu amul ca xar yaag bëy ya waaw léegi nag nag yaag giléem ya nag ndax am ngeen preuve buy wone ne nag sangam day aram na ñu lekk ko giléem sangam day aram na ñu lekk ko wala lii ñu ëmb seen biir aram na ñu lekk ko ndax am na kenn ci yéen ko seede ba yàlla di araamal loolu loolee mbokk da ngay gis ne amul loolee ñu bàyyi ci xel bu baax su ko defee daganul ci doomu aadama muy araamalal boppam lu dul la yàlla araamal ci moom wala ñu bàyyi ci xel bu baax borom boobu nag subhanahu wa taala mu ne ana ko gën a mën a tooñ ci kiy duural yàlla ay fen ngir réeral doomu aadama yi mbokk la ëpp ci réer gu doomu aadama yi réer la ko lal muy duural yàlla ay fen yonent yi alayhimu salaam ki ci mujjoon mooy suñu yonent sallallahu alayhi wa sallam luñ daan wax mbooloo mi yàlla rek ay yàlla man ab jaam la amuluma leen njëriñ amuluma leen lor waaye biñ demee ba doomu aadama yi commencé suñ caam day amul moroom li ko yàlla defal ku ko xam ku ñu suul ci wetam ku ñu nangam nangam loolee nga xam ne dañ koo jël di ko duural day tax ba nit ñu bari xeeb yonent ci yàlla bi yëkkati la nga xam ne muy suñ caam bal am na ñu ciy dem ba mujj sax xeeb yàlla jël seen taam teg ci kaw yàlla ak yonent yàlla ba ñu mën a gis sax ay nit di wax daan suñu demoon yowmal qiyaama day mel soxla lu ma yàlla dara soxla lu ma yonent yàlla dara seen taam daal lu ma joxul soxlu ma ko lan moo waral loolu doomu aadama yi di ko wax ndax li nga xam ne duural nañ ko ñàgg ko digg te ay may yoo xam ne dañ koo jagleel seen taam loolee nag mbokk mooy li gën a garaaw ci bakkaar yi gën a garaaw yi yàlla tudd mooy duural yàlla ndax duural yàlla mooy indi shirk mooy indi bidaa mooy indi kufru mooy indi noonu mooy indi teqali dina yàlla ci borom bi nag subhanahu wa taala ne tooñkat yi mag yooyu day yàlla du leen jubal mukk inna allaha la yahdi alqawma zalimin te tooñ gi gën a réy ci tooñ yi mooy bokkaale yàlla nañu yàlla musal ci tooñ zahiran wa batina
قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي غفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون بارك الله فيكم سني بروم جل وعلا مني قل لا أجد فيما أوهي إلي محرما neel man day fekkuma ci li ñu jàngale jëm ci man li ñu wax yu jëm ci man lenn lu ñuy araamal ala taimi yatamuhu yatamuhu yatamuhu ci bépp aji lekk joo xam ne day doon lu muy lekk illa an yakuna maytata xanaa lu dul ni dafa doon loo xam ne lu medd la aw damam masfuuxa wala deret joo xam ne dañ koo tuur ay la tuuru bañ koy rendi aw laxma xinziir wala yàppe mbaam xuux fa innahu rijis lool ñu leen limbal day loolee sobe la aw fisqan uhilla li gayrillahi bi wala ak génnug topp boo xam ni bañ koy rey dañ koy yëkkati weneen tur wu bokkul ak turu yàlla jalla wa ala faman uturra gayra baaxin wala aad koo xam ne ni daa loru ba muy dem nekkul baaxin bew yóbbuwu ko ca wala aat jiggiwul dayo it fa inna rabbaka gafurun rahim sa borom yàlla day kuy jéggale la kuy yërëmaate la wa ala alladina haadu amma nag bu dee ca ña nga xam ne dañ ne ay yahud lañu xaram naa ku xaram naa kulla di zufr araamal nañ ca ñoom lépp loo xam ne dafa am benn we bu teqlikowul ومن البقر والغنم ومن البقر والغنم نكنو ليت نجيا اك جرغ داوغا مي بيا خريا حرمنا عليهم شهومهما ارامل نانتي نيوم سين غريسيا الا ما حملت ظهورهما خنا دودل ين نكو سين غناو يا او الحوايا ولا لاغا خامني ني موم موي سين بقيا او ما اختلط بعظم ولا لو خامني ني دا فا جخاسوك سين يخيا zalika jazaynahum bi baghihim lii day mooy lañ leen faye ca bew ga nga xam ne dañ koo bewoon wa inna la sadiqun te ñun day ñooy aji ñu dëggu jalla wa ala bokk suñu boroom gis nañu ne bokk na ci ay xéewalam mooy jurgooge nañ ko jël di ko lekk te di ci jaamu yàlla te yéen mbokk ñu xam ni jur gi la gën a màgg lum ñuy jëriñ mooy ñu jaamu ca yàlla te mooy tabaski ngi nii soreetul yal na yàlla yeggee lu ñu ca waaye suñu borom yàlla subhanahu wa taala moo ñu may an am yooyu ñu war koo tabaski muy lii mu wax ci xar bëy gileem ak nag lii lépp mënees na koo tabaski donte ni la ëpp ci borom xam-xam yi dañ ne xar moo gën ci lu ñuy tabaski ndax cosaanu tabaski ma nga jóge ci ibrahim ca xar la tabaski yeneen ci bali salatu wasalaam tabaski ke fi fekk yépp xar la tabaski am na nag ñu naan gilim moo gën wala nag a gën waaye xar mooy la gën mi ngi noonu loolee da ngay gis bokk na ci mbaaxug yàlla ngay gis kërug lëmm bisu tabaski bu ñu rendee benn xar yàlla bindal kër gi yépp yoolu rendi nañ xar yàlla may na ci mbaaxam juróom ñaari kër mën nañoo daje bokk benn gileem yàlla jàpp na ñoom ñépp ku ne rendi na gileem ñu rendi benn nag ñoom ñépp ku ne rendi na benn nag loolee ci xéewalug yàlla la mu ne maa ko tàggat ngir ngeen ciy tudd yàlla di ci sant yàlla mu safaanoog nag ña nga xam ne ñoom dañuy jël jur googee di ko reyal keneen ku dul yàlla moo tax suñu borom mu ne xam lin ni li ma li ñuy wax yu ci man amu ca lenn lu araam lu doomu aadama di lekk xanaa lu dul loo xam ne medd la mbokk medd mooy lépp loo xam ne dafa rey ca rendi wuñu ko loolee medd la daa jóge ci kaw dafa dee ca rendi wuñu ko naam dafa dee ca rendi wuñu ko loolee dañ koy tudde medd la ca suñu borom génne maye ko ca mooy la deeye biir géej wala la nga xam ne yu sew yay naaw muy jéeréer yàgg dema noonu waaye gannaaw loolu lépp loo xam ne daa xëy dee ak lu ko mën a rey te du doomu aadama moo ko rendi islaam may wut loolu ñu lekk ko allahuma lu dul bokk na ca yow mi tàggatoon sab sab sab xaj islaam may na la su dee da nga koo jox ndigal bismillah su demee boo reyee dagan na nga lekk ko yow mi jëloon loo xam ne mënoo koo jotit nga wax bismillah te la nga xamee ne nii moom mooy la nga xam ne nii moom ngay rëbbe loolee bu dee ne daf koo jam daa di koy tuur deretam islam dina la may nga lekk loolu te mooy loo xam ne nii mënuloo koo jot amaa bu doon xar mi nga tiim nga jël sa xeej bisimilah jam ko ko loolu du dagan mi ngi noonu yu néew néew yooyu daal la ci yàlla génne waaye bu dul loolu de manière générale loo ren diwul moom daganul nga koy lekk gannaaw ba mbokku arab yi ak ba tey yéefiri dañ koy def dañ daan rendi indi seenub këll deret dañ daan rendi yépp dañ koy taataa suñu paree dañ koy lekk islam nag xamal nañu loolu daa xaraam alhamdulilah dem nañ ba médecine mujj trouvé ne deret boobu di tuuru ëpp naa lekk musiba la waaye ñun la tax ñu bàkko du loolu yàlla ko araamal araamal nañ ko la ca des mooy yàpp mbaam xuux yàlla moo ñu ko araamal araamalal te loolu mi ngi noonu la ci nekk ci musiba bari na lool donte ne ñun loolu taxul ñu bàyyi ko yàlla ko araamal moo tax ñu bàyyi ko suñu borom mu ne lii lépp ay sobe la muytu leen ko te mbokk yàlla ci mbaaxam xeeti yonent bi alayhi salaatu wasalaam araamalul ci ñoom lu dul leen di lor araamalul ci ñun lu dul lu ñuy lor looloo tax ba képp koo xamee ne nii borom xel nga li yàlla araamal bu ko yàlla araamalul woon it doo ko lekk gis ngeen suñu borom mu ne registre la moytu leen ko da leen di lor gannaaw li loolu it kii moom jël na xar moo xam ne dara sikkuti rendi ko waaye fan la ko rendee da koo rendil xërëm ba ba mu koy rendi da caa tudd beneen tur bu dul turu yàlla suñu borom mu ne loolu fisq la loolu bu ko kenn lekk xar la gilim la nag la ginaar la lu mu mën a doon lépp lu ñu rey ci xërëm ba wala lépp lu ñu rey même bu doon ca jàkk ja lañ ko rendee waaye bañ koy rendi tudd ñu ca turu yàlla loolee fisq la kenn du ko lekk gis ngeen borom boobu nag ne xanaa lu dul koo xam ne da nga loru ki loru mooy kan mooy lii su ma ko lekkul damay dee lii su ma ko lekkul mën naa dee ku mel noonu day borom bi mu ne bu dee bew yóbbuwu ko ca yàlla baal na ko mu lekk ca ba muy lekkit ba mu demee ba yëg ne lam doon faj faju na mu arrêté yàlla baal na ko waaye bu jégee dayoo yàlla subhanahu wa taala dana ko toppee loolee loolee mi ngi noonu wala aad ba ñu jéggi dayoo borom bi nag nee na su boobaa moom kuy jéggalaate la kuy yërëmaate la lii mbokk la ñu suñu borom baaxee mooy daganal ci ñun yu teey araamal ci ñun lu ñuy lor amma yahudi yahudi ñoom bañ bewee suñu borom mu ne fa bi zulmin min allazina haadu harramna alayhim tayibatin uhillat lahum yahudi ñoom bañ bewee yàlla daa fekk lu baax lu am njëriñ mu araamal ko ci ñoom ngir seen bew ga bokk na ci loole yàlla araamal ci ñoom lépp loo xam ne weyam ba xarul lu mel ni giléem yaag autriche yaag ay yu deme noonu yàlla araamal ko ci ñoom yàlla dafa araamal ci yahud ñu lekk ay giléem donte ne ñun ci lislaam yàlla daganal ñu lekk ay giléem la nga xam ne mooy nag ya ak xar ya ak bëy ya suñu boroom araamal ci ñoom Grèce gay nekk ca seen fàllera ya Grèce yay nekk ca yeneen côté yi xanaa lu dul nekk seen digg gannaaw ya ak lu jaxasoo seen butit ya waaye bu dul loolu façon Grèce yooyu yépp yàlla araamal ko ci ñoom donte ne yonent bi alayhi salaam nee na yahud yi day bi yàlla araamal ci ñoom lekk graisse luñ daan def buñ reyee seeni nag ak seeni xar dañuy dajale graisse ku araam googee daal di koy seeyal def ko diw buñ ko defee diw daal dina jaay nañ ko jaayi ñu graisse diw lañ jaay ay mooy naxante ak yàlla te loolu bari na ay jullit yi jéem a naxante ak yàlla ci wàllu riba laa mbokk jullit su ko defee kon borom boobu subhanahu wa taala ni ñii day la leen yàlla faye ci seen bew ga te ñun day ñooy ñi nga xam ne nii ñun ñoo wax dëgg ci seen kaw te bañ demee ba bew yàlla subhanahu wa taala daal di taral ci ñoom loolee day tax seeni bàkkaar gën a yomb seeni mbugal gën a yomb ci yàlla ngir yàlla da leen a mere mi ngi noonu Cheikh Ousmane
فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين فيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين جزاكم الله خيرا سني بروم جل وعلا مني فإن كذبوك سدين لا يدي فقل ربكم ذو رحمة واسعة neel sa borom yàlla day borom yërmaande la ju yaa wala yuraddu ba'suhu anil qawmi almujrimin waaye kenn du delloo ayam ba jëm ca xeetu bakk borom bakkaar yu mag ya fa yaqulu alladina ashraku xel sa naa wax ñoo ñey di bokkaale law shaa allahu ma ashrakna wala abauna bu neexul woon yàlla duñu bokkaale ñu nag suñuy bàyyi wala xaramna min cheyin te duñu araamal dara lu mën a doon kazalika kazaba alladina min qablihim naka nii day la weddee ña nga xam ne ñoo jiitu woon xatta zaaqu basana ba baa ñuy mos suñu mbugal suñu aywa qul hal indakum min ilmin fa tuxrijuhu lana ne leen ama ndax am ngeen lenn ci xam-xam ngeen génne ko ñeel ñu in tattabi'una illa zann topp leen lu dul ay njorte kese wa in antum illa taxrusuun te nekku leen lu dul di nattale kese rek qul fa lillahi alxujjatu albaalixa neel ñeel na yàlla day lay ya gën a jotale falaw shaa la hadakum ajmain su ko neexoon mu jubal leen mboole seen mi ngi noonu mbokk suñu boroom def na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne leen ñii day bu dee dañ laa weddi xamal la sa borom yàlla day borom yërmaande la ju yaatu la ca mbokk suñu boroom mooy ki nga xam ne ab jaamam lu mu ko moy moy lu mu ko weddi weddi du dem mukk ba mu seexlu ko du dem mukk ba mu won ko gannaaw fii mi ngi dund loo mën a def boo ñëwee mu jéggal la baal la waaye loolee mbokk mi ngi yem ci nga tuub avant ngay dee amma suñu borom yàlla subhanahu wa taala su dee ne dem na ba imma fii ci àdduna xam ne ne kii kat ak tuub moom deetu doo du ko defet ba mbugalam ñëw te ña ci jëkkoon may qawmu nuux suñu borom mu ne lan yu'mina min qawmika illa man qad aman nuux sa xeet bi keneen dootu gëm mu ne ba muy wàcce mbugalam amul kenn ko mën a fekk mbugal boobee amma yërmande moom su doon te ne doomu aadama teel naa tuub yàlla jéggal la yërëm la bokk na ci lu alagoon bokkaalekat yu jëkk ya alag bokkaalekat yu mujj yi mooy layee ne lii ñuy def bu neexul woon yàlla du sax yéeféer yi lu mu daan wax waaye yéen yéen a bëri solo ñun dañoo fekk suñuy maam di bokkaale fekk suñuy baay di bokkaale ñun ñi ngi bokkaale teewul yàllaa ngi yokk suñuy xéewal nga def ne lii bu ñu xul woon yàlla dana am gaa yi lu bari lii moo yàq seen diine lii moo yàq seen diine da ngay gis gis naa benn waay ba ñuy woote di màggal ci mairie at yi ñu ne yàlla yu ñu ne seen maam kilifa ga jiitu woon na gaa yi xam ngeen ne aw fen du am téeméeri at waay gis ngeen waaw mbokk fenu seytaane kañ la fi woon benn waay day ñëw fii créer ay biddaam ay caaxaanam daa di góorgóorlu indi fexe na rey benn nag te déwén sa mu kur kur kur am ñetti nag balaa dix ans mu am kàttanu rey téeméeri nag su ko defee mu jàpp ne xéewal yii ko yàlla di sotti nga xam ne amul tànki gannaaw tànki kanam rek lii may def neex na yàlla la wallahi mbokk julit suñu borom yàlla subhanahu wa taala la ko neex day tege ci xam-xam moo tax mu ne ndax am ngeen xam-xam bu ngeen yor ngeen génne ko ñeel looloo tax ba mbokk layee la nga xam ne mooy la ngay def yàlla seetaan na ko kenn du ko layee doomu aadama dañ naan war ngaa gëm dogal naam yàlla mooy dogal mooy iradatul kawniya mooy yàlla lu ko neexul du am la chak waaye nag dafa am lu mu gërëm ak lu mu gërëmul doomu aadama da laa tëralal ñaari yoon ne la yoon bii de laa bëgg nga jaar ci soo ñëwee àddina nga dem yoon bi boo ci jaaree sawara nga jëm léegi nag loolu la neex defal nga jaar yoonu bon su ko neexoon doo ca jaar ndax moo la bind moo la moom waaye nag da lay seetaan jaar ga nga jaar yoonu bon tànnal ko sa bopp ndax da ngay lay ni yàlla mi fi teg déedéet yàlla la may xel dof yi yàlla tegu leen loolu ñi ngi noonu xale yi majeurugul yàlla tegu leen loolu amma yow bi majeur am xel yàlla tëral na la ay yoon heure boo jógee def solo bon ba pare di laye ne lii daa neex yàlla moo tax mu am def nga double erreur moo tax jamono Omar ibn Khattab ñu ne indil nañ ko benn waay ñu fekk ñu ne daan naan bi mu naa ni ñu jàpp ko ñëw war ko indi booba ñu ñu daan dóor juróom ñetti fukki yar ñu ne nañ ko Omar ne nañ ko nañ ko dóor ñu dóor ko juróom ñetti fukki juróom ñetti fukki yar mun na amirul mu'minin bakkaar bu yàlla dogal ci man nan ngeen ma ciy dóori Omar ne dóor leen ko juróom ñetti fukk ci naan gi mu naan juróom ñetti fukk ci tuumal gi muy tuumal yàlla yaa ngi dégg yàlla yàlla moo moo moo moo la forcé nga naan sàngara yàlla moo araamal ci yow sàngara may la am xel na la sàngara baaxul na naan sàngara pare ne ah yàllaa ko dogal ca mboolem mbokk ñuy def loolu ndax kenn ci ñoom dana toog gis góor gu ñëw ubbi néeg soxnaam mu ne ah lii de yàllaa ko dogal naa ko bàyyi ndax kenn ci ñoom benn waay dana ko jog ñëw néeg bu xëy cent mille yeeg ci poosam mu ne ah lii de yàllaa ko dogal danaa ko bàyyi laa wallahi kon lan ngay lan ngay laye dogalu yàlla mooy sa bànneexu bakkan su ko defee mbokk jaamu yàlla kenn du ca layee ne maadaama maa ngi koy def yàgg na maa ngi koy def xéewal yaa ngi yokku kon lii neex na yàlla laa wallahi jaamu yàlla lañ koy layee hal indakum min ilmin fa tuxrijuhu lana ndax am ngeen xam-xam boo xam ne man ngeen caa sukkandiku ne lii de yàlla ko digal lii de yonent yàlla moo ko digal loolu amul kon in tattabiuna ila zan kon njoot rek ngeen nekk te nekku leen la nga xam ne lu dul ñekk di natt la rek lii war naa baax lii war naa baax lii mooy yàq diine yi ñëpp ñi nga xam ne dañoo sànk borom bi nag ne leen xam leen ne yàlla muy borom lay wa matale wi xujjatun baarixa moo tax mu yónni ay yonent wàcc ay téere may doomu aadama yi ay xel ne leen nag yoon yaa ngi nii imma shakiran wa imma kafura kum neex gëmal sant yàlla tega ci yoon wi kum nax weddil soo demee ëllëg yowmal qiyaama amoo benn lay boo xam ne da nga ko am ci kanamu borom bi jëll waala moo tax borom bi mu ne wa ma kunna muazibina hatta nabasa rasula duñu fekk mukk aw xeet ñu leen di alak te yunni wuñ ñoom ay yonent képp koo xam ne nii àndoo sa xel yàlla du la toppate lool fa lillahi alxujjatu albaliga mu ne na am su ma neexoon jubal leen yéen ñëpp loolu ñu naan bu neexoon yàlla duñu bokkaale na am su neexoon yàlla mu jubal malaaka yi su neexoon jubal nit ñëpp waaye yàlla neexu ko lan moo ko neex mooy mu bind nit ak jinne may leen autonomie tëralal leen aw yoon daal di leen di jox ay xel ne leen nag mi ngi nii li ma bëgg mooy lii lii laa bëgg ngeen def ko seen pay mooy lii lii laa bañ ngeen def ko mbugal maa ngi nii ña nga xam ne ñoo nangoo nekk jaamu yàlla nangoo jaar ci yoonu yàlla mu taral leen ci àddina xaalidina fiha abadan yal na yàlla boole ñu ca ña nga xam ne nag dañoo jël seenum xel jëfandee ko seen bànneexu bakkan mooy ndigalu yàlla yi daa di daa di jëfe la nga xam ne waaye tereem ñooñu bu ñëwee yàlla subhanahu wa taala am ci ñoom lay bu mat sëkk ngir mbugal leen ca mbugalam mbokk mi ngi noonu yal na yàlla dëpp la ñoo ngërëmam fi dunia wal axira saxal ñu ci sunna yeneen tam te defal ñu àjjana suñu wàccuwaay wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain yëpp sarax boo xamul ndax bu xaaba moo ko ko digal am déet awalan mbokk nañu xam ni sarax miskin yi ñoo ko yeyoo kii génn sarax da ko war a jël joxe ko ay miskin bokkul ak li ñu tuddee hadiya nit ki mën ngaa rey sam xar invité ay say xarit ak say jegenaale mais bu ñu xisee bana sarax rek loolu dañ koy war a jox fuqaraaw yi mu des nag yow ab julit ñëw na may la la nga xam ne mooy mooy mooy aw yàpp may na la la nga xam ne mooy aw yàpp xamoo nu yàpp cosaanoo su boobaa da ngay gis ne yàpp boobu dagan na nga lekk ko dagan na nga lekk ko maanaam xamoo fu mu jógee sa bokkum julit la moo lu ko may amma nag bu dente ne ñaaw nga njort ci moom xam ci melokaanam kii day day jëfandikoo ay xërëm ak yooyu loole moom la nga xam ne mooy la gën nga bañ koo lekk waaye daal kañ lay araam mutlaqan mooy heure boo demee ba yëg ne yàpp wi dañ koo rey ngir ay xërëm wala yàpp wi dañ koo rey tudd ca leneen lu dul tur yàlla te bokk na ci loolee la nga xamee ne ni moom la sëriñ yi tere yaxa jëri def moo dine ne sa problème bi pour mu faju fokk da ngay rey xar sangam ganaan sangam ganaan sangam loolee ay mbir la yoo xam ne yàlla subhanahu wa taala wàcci wu ca benn lay wallahu subhanahu wa taala aalam naam naam bismillah naam ñi yàq mu ne mu ne lu koy yàq ci lan ah ah ah ah waaw dafa ba ba nga daan inconnu man koor inconnu inconnu la fa ma la wax sax wa ala kulli xaal fitna la boo xamee ne nii nañu xam ne fitna la ndaw ñi koy def ñu bari jàng ñu diine waaye jàpp naa ne xale yi ngeen gis ci jàkka ji nii duñ dem mukk di toj ay bitig ak taal ay essencerie ñooñu koy def xamuñu diine boo xamuñu diine xamuñu lu bari ci àdduna da ngay gis quatre-vingt-dix pour cent yi ñuy yàq ñooñu seen yoon nekkul ci problème politique bi loolu ñu bokk ñu bàyyi ci xel bu baax xatta Auchan yi ñuy taal lu ci bari ay sénégalais ñoo ko moom essencerie yi ñuy taal sénégalais ñoo ko moom kaar yi ngeen di taal yéen a ciy dugg yéen ak seeni seeni morom am déet yaa ngi dégg ñii nga xam ne ñuy xëccoo langue politique bi kenn du ci dugg kaaru Sotrac yaa ngi dégg ñii dem di taal Senelec yi Senelec boobee kan moo koy jëfandikoo bi seen Senelec la loolee kon mbokk ndaw moom bu xisee ba offri yu boole ko day jàpp ne yàq rek moo fi sës waaye mbokk suñu borom bëggul yàq suñu borom mi ngi ŋàññi ña nga xam ne wa ida tawalla saa fi l ard li yufsida fiha wallahu la yuhibu lfasad yàlla bëggul yàq looloo tax lu mel nii jafe na nga gis ko ci pays asiatique yi ndax mbokk yi gis ngeen grève yi am japon ak bénéfaction yi am japon ay brassard rek la ñuy takk doo gis mukk ñuy nekk di yàq di toj parce que li nga yor yaa ko moom mi ngi mel ni ki nekkoon ci biir këram rek di toj frigo yeeg kii yi loolu rek la alal li alal li réew mi ñëpp ko bokk yow nga jël ko di ko yàq mbokk loolu la ñu xam ne jaaduwul donte ne it politiciens yi nga xam ne ñoo sabab loolu it yàq googee ñoom ndaw ñëpp ñoo ko bokk yal na yàlla wàcc jàmm afiye suñu réew wallahu aalam naam bismillah naam waaleykum salaam wa rahmatullah naam ndax islam bu dee ne dafa am njiit julit buy tooñ ndax dana tax ñu topp ko naam du tee ñu topp ko du tee ñu topp ko lu dul mu ñu topp ko ci loo xamee ni nii dafa safaanoog ngërëmal yàlla jalla wa ala lii mooy la nga xam ne mooy mbir bi waaye du ñu wax rek ne parce que moom day tooñ kon kenn dootu ko topp déedéet mbokk julit borom xam-xam yi dañ naan dictature lu mu bon bon bon moo te ne anarchie dictature mooy buur boo xam ne dafay imposé wu moo tane kenn jiituwul kenn loolu ñu bàyyi ci xel bu baax su ko defee suñu borom def nañu topp leen yàlla ak yonent bi ak seen njiit yi bokk ci yéen jamono yene yonent bi alayhi salaam am nañu ko laaj sax waaye bu ñu amee buur boo xam ne daf ñuy dóor di jël suñu àq mu ne yéen fexe leen seen àq boobu ngeen delloo ko ci yàlla waaye ngeen fexe ba bañ a doon koo xam ne ni di ko moy buur daal la nga xam ne moom lañ koy moy mooy loo xam ne dañu koy digal ci neexul yàlla bépp buur bu mu mën a doon lépp lu mu digle ci digal boobee ak mooy yàlla nekk ca lu mel noonee kenn du ko toppata loolu lii mbokk mi ngi noonu su ko defee nañu xam ne règle yi ñuy tëral ñun ci wàllu loi wala démocratie lu ci bëri day safaanoo ak règle l'islam malheureusement politique yi niñ koy tërale ak loi yi niñ koy tërale amul benn loi boo xam ne dañ naan naka Coran waxe wala naka hadis waxe ñoom ñoo tëral seen loi yu bopp looloo tax yii di xew yépp di xew donte ne mbokk julit yi dañoo waroon a xam ne ay julit lañu avant ñu nekk ay politiciens ñu xam ne ay jaami yàlla lañ nekk avant nekk des sénégalais ba lépp luñ doon def ñu sóoraale ci yàlla wallahu subhanahu wa taala aalam naam kon yaakaar naa mbokk mënees na doyloo loolu di ñaan yàlla defal ñu aafiye ci suñu réew defal ñu ko ci suñu diine ji ak njaboot gi yépp wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain